journée de l'arbre di bis bi nga xam ne moom la ñu jagleel garab ci biir Sénégal mu taseeg diggante Mbàkke ak Touba askan yu ay jamono garab taxul woon mu ñor leen lool waaye jamono ji mel na ni kenn ku ne yaa ngi dem ci bërëb yi ñu koy jaayee di ci wut kii di Baye Ndiaye di ñu xamal ne askan yu daal bokk na ci leen gën a ñor am ay garab yu nga xam ne ker lay indi. fii euh, garabu ker lu mel ni mantalis melina feltu forom falamboya yooyu la ñu gën a soxla pour ker xam nga nag fii day tàng euh, looy def amal ker ba pare ndax tàngaay bu ñu bëggee mu wàññi ko nañuy baril garabu ker yi te di ko toppatoo bu ko defee rek tàngoor yi dana wàññeeku waaw ornemental yi nag doo ñëw mooy mooy mooy yi ngay gis nii pour rafetal ci biir kër gi waaw waaye nag na nga am ab ker ba noppi dooga am ay ornemental mooy tax mu mu mu dikk ni mu war a dikkee wax dëgg yàlla macha allah bu njëkk moom xamuñu ko waaye fi mu ne wax dëgg yàlla itteewoo nañ ko lool am na ci ñenn ñoo xam ne euh, gason lépp lañ leen di defal dañ leen defal sardin boo xam ne lépp lépp da ne lépp da cee fii nag dafa am plante yoo xam ne mën nañ fee dund ak yu fi mënta dund yi fi mënta dund mooy yi nga xam ni seddaay lañu bëgg waaye yi ngi ñeme tàngaay yëpp plante bépp plante bu ñeme tàngaay mën na fee dund rawatina nag bu ko ko xam toppatoo maanaam xam gi nga xam ne garab gii kat lee ko tënk nga dindi loola ko tënk defal ko la mu bëgg ko defee garab gi day dem saa su ne garab gi day rafet Moustapha Diagne di ku nga xam ni moom it ci dëkk bii la dëkk di Mbàkke saa su nee ci garab yi lay nee moom garab ci boppam moom moo ko ñor ne suba ngoon na mi ngi xool nees lay def ngir mën leen a jëmbat ci këram waaye ci kër yi mu dendal. waaw xam nga garab li ñu njëkk a wax sax que doomu aadama yëpp partagé ko mooy garab dafay indi d'abord taw. waaw euh, il faut lutter contre la désertification parce que fi la ëpp garab mooy ëpp lu mu lay ta lu muy taw. waaye loolu xam-xam scientifique yi la duñ ci mën a sori nangu nañ ko xam nañ ko kon nañ góor góorgóorlu ñun ñëpp jëmbat ay garab waaye li nga xam ne directement ñun moom la ñuy jariñ ci suñu vie quotidienne d'abord ñun loolu lañu xam donc moo tax ñuy sonn ci garab njariñ li mooy ni ma ko waxee sànq garab bombe d'oxygène la ku ne xam na nit bu nekkee foo xam ne dafa manqué oxygène ci daanu xam lay mujj euh, rawatina nii ma ko waxee léegi euh, bawal gi dëkk ñun dafa tàng dafa tàng néegub gi tax moo nu fi arrangé woon te gi tax ginnaaw kenn nangootu cee dëkk léegi ñëpp dañuy tabax euh, ciment ngay boole ak feer ak beton te loolu yëpp dafa tàng benn seddu ci dëkk bu tàng nga dëkk ci néeg boo xam ne lañ ko liggéeyee dafa tàng kooku gaañ sa bopp la sunu bâtiment yi ñu ngi tudd comme ni ko euh, borom xam-xam wax des tueurs silencieux c'est des tueurs silencieux mi ngi mel ne tey tuxkat bi tux cigarette rek saa boo tuxee benn cigarette am na lu mu wàññi ci sa santé ngay tuxaat am na lu mu wàññiwaat ba moom lay faat donc suñ bâtiment yi noonu la mel kon nag boo bañee batiment bi lor la dëkkin bi ci ci biir batiment boobu lor la boo amee pàkk balaa ngay wax muul wala wax siment wala wax feer waxal garab ba pare bu fekkee bëgg nga faa ne ci wér-gu-yaram sax njabootit ne fa ngir wér-gu-yaram parce que boo seetee kër yi nga xam ne siment ak béton ak feer képp la amut garab boroom kër ga lu mu am dana ko faje doom yi ordonnance la koy jëndee. waaw su ma amoon ci garab bon man dama jàpp ne xëy na yàlla moo ko def ci man rek xëy na loolu laa loolu laa jàpp. waaye man toppandoowuma ko ci nit man maa bëggal sama bopp sama c'est inhérent à ma personne dafa mel ni yàlla daf ma ko mooñaale waaw dama ciy sonn sonn sonn sonn sonn su ma am na sama benn xaritu maara day may xool ba yàgg ak ni may daj ci ay garab yeeg ni ma ko bëgge mu naan tubaab bu ñuul la ma ne ko nag loolu laay bañ sëñ bi ngeen di ko wax lu baax moom ngeen bëgg koo féetale tubaab bi ñun ñu ñoo war a gën a bëgg lu baax <laughs> du ma tubaab damaa bëgg nit ñu ñuul ñi raw tubaab bi ciy garab raw tubaab bi ciy garab donc lu baax bu buñ ko féetali tubaab bi nañ fexe moom mu doon sunu mbiri bopp ah waaye nag bëgg garab mulu ma la ni moom fii ku ne loolu tubaab di wax ci euh, amour coup de foudre gis nit ki rek bëgg ko te xamoo lu tax nga bëgg ko garab noonu laa ci mel munu ma la ni lii tax ma bëgg ko waaye sama àdduna bépp garab la <laughs> te maa ngi fexe département Mbacké aussi di lancer appel képp koo xam ne am nga ci jaaxle boo ma wooyee man dama lay jàppale gratuitement parce que li ma wax Mbacké moom damaa bëgg mu doon Casamance ku ndaw <laughs> waaw une petite Casamance ah. diwaanu Mbàkke ay jamono li ëpp ci garab yi weesuul woon na niim guy ak kàdd waaye jamono ji mantalis yi mi ngi ni fi xas.